واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم بسم الله الرحمن الرحيم ba léegi ci penc mu am solo mi émission bi di daarul maarif al islaamiya te nit ñeen koo xewoon léegi xanaatu masjidil jaami bi Tuuba di ko amal lépp nag ci taxawaayu waa daayira muxaddamatul xidma wax nañ ne bindu yu bari lay doon euh, bind yu bari lay doon ci njàngale majlis lenn li dana jëm ci fiq tasawuf ak fànni diine yu bari siira ak yu bari ak naxu ba tey naxu ci lañ bëgg a jàppalante ci benn ci tàmbali ko ni incha allahu taala tey ñaan yàlla lépp àgg ngeen xam ne naxu lu mënta ñàkk la an naxu zeynun lil fata yukrimuhu xaytu ata man la lam yakun yaarifuhu fa xaquhu an yuskata an yaskuta mooy li defar làmmiñ bu ngeen delloo ci mbind sëñ bi da ngeen xam importance ak yitte ju naxu am danga nga gis mu tudd ba tàyyi sax fu ci ne di wane lim lim saytoo naxu ak balaaxa ak ci aju yépp lu ci bari lu ko yàlla may la annaxu wal arudu wal bayaan loolu ne rek yàlla defal na ko ko ci bu fonkoon ko lool day feeñ ci leetar yi mu daan bind feeñ ci ni muy taalife ak yu mel noonu daa nga dégg ca Mauritanie ca naar Gànnaar daanañu wax ne sëñ bi leen yéem ci moom leetaram daanañ ci dem di ubbi ji xaamus ngir xam li muy tekki ab leetaram it léeg-léegi daanañ dem di ci delluwaat ci téere yi ndax day indi jëfandikoo baat boo xam ne dalay jaaxal day wuteeg li nga xamoon waaye boo xoolee ndeke am na ci borom xam-xam yu ko dagal ci naxu wala ci sarf wala yu mel noonu ku yéemu la euh, xam xam la bu yàgg waaye ngeen xam ne jamono yu yonente bi ak yu mel noonu amutoon ndax soxla wuñ ko woon jamono yi araab yi yi fi yi fi nekk arab yi soxla wuñ woon naxu ndax daawuñ yàq ñi taxoon ñu daan waaye araab nag tax may wax daawuñ yàq gis nga way yàgg yépp shu'ara ul jaahili yi nga gis ak yi ni mel mu ñooñ lañ tuddewoon arab yi ba ci jamonoy saxaaba yi yàq amutoon ci seen làmmiñ dafa nekkoon saliqa ci ñoom comme nii ñu mel ñun ñii bu ñuy wax wolof nga xam ne gone gu juddu màgg tuuti bu xawee mag dootu ko yàq da koy wax ni ko war a waxee arab noonu la meloon ci ñoom moo tax soxlawuñu woon xawaayid yi moo tax kon ñoom boo leen laajoon lan mooy xaala fi'lu maadi la mu abdul xaadir faa'il la ma saaiqihi diw ñu naan la jaar ak majruur soxlawuñ yooyu soxlawuñ loolu waaye xam nañ ko buñ doon wax qaala niñ ko war a waxee lañ ko waxee faa'il ba ci topp dañ koy rafaa maf'uul bihi ma dañ koy nasab jaara majruur dañ koy jar duñ yàq saliqa la woon ci ñoom wa lastu bi nahwiyyin yaluuqu lisaanuhu walakin saliqiyyun aqulu fa a'ribu noonu la mel ci ñoom alxuraan noonu la mel ci loolu la wàcc bi lisaanin arabiyyin mubiin xadis yi nga gis yëpp noonu la mel gis nga way yàgg yooyu it arab yi yëpp noonu la waaye nag bi ñu demee tuuti doxee tuuti ba àdduna si gën a ubbeeku araab yi jaxasoog ñeneen ñi dul ñoom am na kuñ daan wax nee nañ ci jamono Seydina Ali ibn Abi Talib la kuñ daan wax Abul Aswad ad-Du'ali moo mos a seetlu doomam ju jigéen ju yàq am lum ko laaj Abul Aswad baayam tontu ko comme ni mu ko laajee ba mu ko tontee nag ci la xamee ne doomu jigéen ji dafa yàq ndax waxu ko li mu ko waroon a wax mooy da ko laaj maa jëfandikoo maa goo xam ne maa taajubiya la mu jëfandikoo ko ci maag istifhaamiya comme maa achaddul xarra ak maa achaddal xarra ci misaal xam nga boo nee maa achadda bu ko laajoon bu fekkee ismu la ko jëfandikoo ne ko maa achaddul xarri baay bi tontu ko wax ko ne ko ay yaa mooy jamono période sangam ak sàngam mu ne ko déet doom ji ko déet man damay yéemu waaye woo laajuma la mu ne ko nag waroo woon a wax loolu da ngaa war a wax kon maa ashaddal xarra nasab ashaddal xarra mu ne ah lii de deen war yàq yi dee ngi tàmbalee am kon nee nañ ci la ci waxee ak Seydina Ali bun Abi Talib jamono yooyu moo tax kon dañoo jàpp ne Seydina Ali mooy ki njëkk a teg xawaay di naxu noonu lañu aw awalu man afaadanan naxwa ali sababuhu laxnun xakaahu du'ali abul asadu du'ali an bintihi allati nawa taajuba fastafhamat birafi fiiliha aba fa qaala qawli ma ashaddal ila axirihi way gudd gudd mooy sabab si tax ñu tër naxu nee nañ nag Seydina Ali woo ko ba mu ñëw ne ko tegal ko xawaay di naxu yu njëkk yëpp ba mu noppee nag ne ko unxu bi haza naxwi yaa abal aswad loolu moo indi xam naa tax ñu tëdd ko baabu naxu jaaral ci yoon woowu rek ne ko kalaam nangam la ismun wa fi'lun wa xarfun ismu ma anbaa an il musamma wal fi'lu ma dalla ala xarakati il musamma wal xarfu ma dalla ala maanaam xeyri zalika wa fi l kalaami zahirun mudmar wax ko tegal ko xawaayid yu njëkk yëpp yi mënta ñàkk ne ko nag demal unxu bi haza naxu ya abal aswad loolu waral naxu kon abu asad addu ali moo ko keree ci jamono seydina ali ci xissa bi nga xamante ni wax naa leen ko muy lu mënta ñàkk nag ndax yàq nit dafa war a wax ni ko war a di waxee surtout nag bu fekkee dafa laal ci alxuraan wala yu mel noonu hmm. téere bi ñu ciy jàng nag mooy alfiyatum nu malik alfiyatum nu malik téere naxu yu bari na waaye ibnu malik mii nga xamante ni ma nga dëkk ca Andalus di boroom xam-xam bu mag faatu 672 dëppoog ci milaadiye 1474 moo ko taalif ku bari woon xam-xam Muhammad ibnu Malik attaa yi euh, bokkoon ci masabu shafii yi dimashq la mu jën dëkk dimashq xam ngeen ne tey ma ci réew ma ñax siiri waaye mooy ibnu malik la cosaano nit ku bari xam-xam liñ waxoon rek ci sëriñ bi ko jiitu woon yàlla bindal ko ak xabul lool ci téeram bi ba tax na ba tey ñu ko saraa ay téeméeri téeméer lañ ibnu malik du ku bari xam-xam njëkku taalif na ci lu bari taalif na beneen téere naxu bu ñuy wax alkaafiyatu shaafiya moo ëpp junniy way ju euh, mën na ñaari junniy way ak nangam téere bi junniy way la xam nga moo tax sax ñu tudd ko alfiya waaye moom day mel a téere bi xulaasa la ko tudde waaye junniy way moo tax ñu askanale ko loolu junniy way moo tax ñu askanale ko waaye taalif na ba beneen téere bu ñuy wax alkaafiyatu shaafiya bu demee ba ci bunt bi mujj gi da gis mu naan axsa min alkaafiyati alxulaasa kamaxtada nadman bila xasaasa jàmbaar la lool amoon na doom ju bari xam-xamit badru diin jàmbaar lool saraana alfiyatun malik bi saraana lu bari ibnu malik taalif na ci eh, sarf gis nga laamiyatul afaal boobu nga nga xam eh, ca ca ca doomam jooju ma lay wax saraa ko ala kulli haal ibnu malik ku bari xam-xam la ku ku ku ku ku ku la hmm. eh, dund na lu yàgg yàgg dund na juróom-ñaar fukki at yu tegal ñeent wala juróom hmm. bismillahi rahmani rahim qaala muhammadun huwa bnu maliki ahmadu rabillahi xayra maliki musalliyan ala nabiyi almustafa wa alihi almustakmilina asharafa wa astainu llah fi alfiya maqasidu nahwi biha mahwiya mu ne ki wax mooy muhammad wax nañ mooy kan ibnu malik malik maamam la waaye loolu arab yi danañ ko daan faral di jëfandikoo nga jóg askanelo sa maam directement ana nabiyu la kasib ana bnu abdil mutalib te ku ne xam na ne mutalib maami yonente bi la muhammad ibnu abdullah am na fu mu jaar doog àgg ci malik ahmadu rabillahi xayra malik mi mi ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy ngeen ci buur mi ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak bi al mustakmilina sharafa ñi xam ne ñoo matal ak tedd nge boo déggee aalu yonente bi sallallahu alayhi wa ñooy ñan mooy mbokkam yi nekk jullit ca bokk ak moom banu hashim da ngay nekk mbokkam nekk jullit ku bokk ak bi ca nekkoo jullit loolu du la amal njariñ kenn du la boole ci aaluhu ca rek sëtoo nag ci banu hashim bokk na ci yonente bi sallallahu wa sallam mu ngi tudd ahmad abdullah abdul muttalib hashim kon il fokk na ngeen daje ci hashim moomu ku daje ak moom ci hashim rek daañu la boole ci aalu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñii nag bu koy wax ñooy aalu muhammad ñi nga xamante ni dañ leen war a wormaal ñi ci nekk jullit tax may wax sarax dafa araam ci ñoom kenn wur leen ko jox ndax as-sadaqa laa taqil laa taxilu li aali muhammad ak yu mel noonu aalu muhammad nag danañ koy wax léeg-léegi jublu ci rek ku baax ku mën a doon lu gën a yaatu aalu muhammad ku lu taqiyin waaye aalu muhammad gi nga xam ne ci istilaax nga xam ne moo tax ñu ashraaf ñoom la ñu war a wormaal innama yuridullah yujiba ankum rijal ahlal bayt ñooñu mooy ñi aqaaribuhul muminuun min bani hashim loolooy aalihi ab saxaabi it mooy lan comme wax nañ aali mooy lan saxaabi yi mooy képp ku dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoonub jullit ca faatu sa jullit googee bi muy dund nga doon dund dajeeg moom boole ci saxaaba yi doon tuuboon ci jamono yonent bi ca dajewunoog yonent bi am na nooy nu ñun tuddee al muxadramina mooy amoon na xam nga ku ma leen Najaasi ñi nga xam ne dañoo tuuboon ci yeneen saxaaba dëkk feneen waaye da ngay dund bi muy dund nekkub julit faatu ci njulit googa it kéefar moom mënta jëriñ nit ku ko xas def moom layn dawut la jaañ dara kon loolay ab saxaaba xaddu saxaabi muslimun laaqa rasul walaw bila riwayatin anhu watul kon saxaaba donte sax solo wut ci yonente bi baax na donte sax gisoo yonente bi ngir ngànt comme ku gumba comme ku mel ne Abdullah ibnu Maktum ba tey ab saxaaba lañ ko tudde waaye na nga dajeek moom nekkoonub jullit ca faatu suñ jullit googee loolu yëpp saxaaba musalliyan ala rasulil mustafa wa alihi mustakmilina sharafa wa astaanullaha fi alfiya mu ne mi ngi ñaan yàlla yàlla dimbane ko ci fi alfiya ci mooy ju xasidab alfiya bi maqaasidu naxwi biha maxwiya mooy li am solo ci naxwu yëpp téere bi boole ko ci ku ne xam ne loolu am na tuqaribul aqsa bi lafzin mujis mu ne incha allah alfiya dana fexe ba al aqsa maanaa yu sori yi danaa ko jegeel bi lafzin mujis ci kàddu yu gàtt ba noppi am njëriñ wa tabsutul bazla bi waxdin munjazi incha allah taala li ma la bëgg a joxe dinaa la ko jox ca ku ko jàng da nga ko xam mooy ci rendez-vous boo xamante ni kenn du ko foo jotee wa taqtadir dan bi xëy soxte mi ngi sàkku it képp ko xam ne yaa ngi jàng téere bii nga nga di ko xool ci bëtub ngërëm te bañ koo xool ci bëtub saboote ndax dañ ne loo xool di ca xool lu baax lu baax rek nga ci gis looy xool ngir bëgg cee xool safaan safaan da nga ci gis wa aynu rida an kulli aybin kalilatin kama anna ayna suxti tubdi masawiya kon kuy xool dara lu mën a doon lu baax rek nga ciy xool mbooloo boo koy xool gis lu baax li ñuy def ma joxe ci misaal man ngaa wax lu baax ci ñoom ndax wax dëgg yàlla def na lu baax lu baree bare bare waaye boo jugoon ngir di leen xool ba tu bëgg leen a loolu ngay gis ndax nag yàlla subhaanahu wa taala mooy ki mat moo nit kon looy xool ci nit xoolal la ca baax wazkur mahasina ma fihim isa zukiru looy koy wax ci nit moom del wax ci moom lu baax koy xooli del xool ci moom lu baax ndax boo xoolee la da nga ko gis moo tax mu ne kon moom mi ngi ñaan yàlla nañ xoole téereem bi nag bëtub yër rafet ca bañ ko xool bëtub ku bëgg a soxtu waaye xatan alfiyat ibnu moxti yokk na ci lu xorom nee na alfiyaam bi kawe na lool ba moo gën a kawe alfiyat ibnu moxti ibnu moxti boroom xam-xam loon bu mag ñu ko wax Isaa Abdu Nuur taalifa na ba alfiya nee na bi moo gën a kawe loolu daf daje jublu sukkur bi ni am sant yàlla waaye ci lu wér la nag wax dëgg yàlla ko ne xam na ne alfiyat ibnu moxti bi bari na ñoo xamante ni buñ ko déggee ci fii rek lañ ko mos a dégg suñ ko dégg feneen nee nañ nag moo ko dàq ci façon wayin moo ko ëpp maanaam mu andit waaye nag comme xas na wax loolu ba noppi wax gi mu ko waxee ngir sukkur bi ni am sant ci yàlla dong la ci jublu mu tàmbali mel ne ku koy jéggul ne waxoo bi sabqin xaaijun tafdila mustawjibun sana iyal jamila bu muti nag comme moom a jiitu kat yeyoo na moom gën moo tax nag kon yeyoo na man tam ma di ko tagge waxoo bi sabqin xaaijun tafdila mustawjibun sana iyal jamila ndax kat borom xam-xam yi dañuy wax ne falaw qalla mabkaha bakaytu subabatan bi soxda shafitu nafsa qabla tanadumi walakin bakat qalbi fa hayyaja lil bukaa bukaaha fa qultu li fadlil bi mooy ñi jiitu woon daal ñoo gën donte loolu nag waxin la waaye li gën a wér mooy ngëneel mi ngi ci fi ko yàlla def rek moo xam ku jiitu la moo xam ku mujj ku mujj ku ku mujj la gis ngeen sunu sëriñ Cheikhul Xadim mi ngi junj maanaa yu mel nii ci téeram bi Masaalikul Jinaan wala tuxasis fadla rabbin qad ala bi zi taqaddumin faqad fatajhala is rubbama urifatan muaxara ma xaaba amman qablahu wa asura fa tallu qad yabdu amaama alwabli walfadli lwaabi laa littalli yàlla daal ki mu gënal rek moo gën waaye nag tegtalewul ne ki jiitu moo gën ku mujj ki moo gën ku gën ki ku mujj ki moo gën a yees waaye Ibnu Malik da wax fii rek ngir jéggulu rek baat bu mu wax ne faa yàqata alfi nu moxti waaye nag tegtaliwut loolu kon nañ xam loolu ngëneel mi ngi fi ko yàlla def rek euh, ko fi yàlla def rek foofu la nekk euh, la yoxtaale kulli ji xaqin xaqa hmm. wallahu yaqdi bi rida bi bi hibaatin waafira lii walahu fi daraja mu ne yàlla yàlla yàlla may may yu bari lii moom ñeela man ibnu malik walahu ak ibnu moxti fi darajaat al axira ci kër yu njëkk ci bis benc yàlla ñu yàlla may may yu bari bis maag moom am nañu wëlbati bayit wi ndax dañ ne ñaan li gën mooy loo ko gën a yaatal moo gën nga di ko xatal moo tax ñooñu dañ na dafa war na wax ne wallahu yaqdi bi rida wa li lii wala hu wali jamii al umma waaye nag boo xamee ndax ñaan rek loolu du la jaaxal kalaam bunt bi njëkk ci naxu al kalaam ak li nga xam ne moo ci aju muy kalim loolu la bëgg a leeral fii mooy lan incha allahu taala xam naa mooy doon suñu bunt bu njëkk kalaamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa xarfu lil kalim kalaam ci nuxaat yi mooy li may waaj wax kalaam dafa am ci luxa waaye nag taxul ñuy wax kalaam ci nuxaat yi mooy lafzun mufidun lu mel ne istaqim lafzun sart yi na ci am lafzu lay doon mooy kaddu bu génne ci gémmiñ làmboo ay xarafe xijaayiya yoo xam ne da koy mën a gis wala yu ñu nattale lafzu lañ wax kaddu gu génne ci gémmiñ waxuñ yi nga xam ne du lafzu xeeti yëngutu yi jas yëpp junj yeeg xadiisu nafsi ida kallamat nii bil uyuuni alfawaatiri radatu alayhi bil uyuuni albawaadiri ishaara génn na ci alaa tukallimnaa salaasa ayaamin ilaa ramza yooyu yëpp bokk ci déedéet kon lafzun kàddu gu génne ci gémmiñ am ay xarafi hijaaiya mufiidun day nekk wax ju am njariñit wax joo xamante ni mën nga koo wax noppi comme ni ñu wax rek yuxsinu sukuutu alayha mën nga ko wax noppi nga xam ne dangaa wax wax joo xam ne moom nga jublu loolu mooy kalaam ci naxu lafzun kon loo gis mu safaanoog lii ca ñu ko kalaam xamal ne kalaam la waaye du kalaam ci naxu waaye kalaam ci naxu moom yii na ci daje lafzu kàddu gu génne ci gémmiñ lay doon làmbu ay xarfe jaay ba noppi am njariñ indi de misaal mu am solo istaqim istaqim man misaal mu am solo istaqim mooy saxal ci jub amal istiqaama yàlla indi na ko ci alxuraan fastaqim kama umirta kon istiqaama loolu la kon nag lépp loo xamante ni biñ ne lafzu la lépp loo xamante ni du lafzu génn na ci comme lu ma la bind ya Aïcha wax ma bay na di fatiyal musxafi kalaamullah loolu kalaam la ci luxa waaye du kalaam ci naxu lu ma la ishaara junju naa ko léegi kalaam la ci naxu waaye du kalaam ci luxa ak yu mel noonu na nekkit lu am njëriñ baat yoo xamante ni amul njëriñ nga jékki-jékki ne zeydun dong wala nga jékki-jékki ne xulaamu zeydun nga xam ne mënoo ko wax noppi taxut di wax taxut ñu koy wax kalaam kalaamu naa lafzun mufiidun kastaqim looloy kalaam wasmun wa fi'lun summa xarfunil kalim kalim nag boo ko bëggee xam mooy lan mooy ismu ak fi'l ak xarf ñett yoo boole ismun fi'lun ak xarafun loolu mooy kalim mooy ñetti baat daal ci gàttal rek ism ak fi'l ak xarf qaama bu la ne ism ak fi'l ak xarf boo boole rek mooy sartuñ ci nag am na njariñ ak yu mel noonu waaye liñ sart nag dina mat ñetti baat rek ism fi'l ak xarf comme noonu mu ko waxee ñetti baat loolu li gën a wér mooy li nga xamante ni mooy kalim mooy mooy mooy kalim dana wax léegi incha allah taala seen seen li nga xam ne moo ci nekk waaxiduhu kalimatun mu ne kalim nee na mooy ñetti baat yoo boole boo ci ber ci ñetti baat yooyu nag kalimatu lañ koy tudde kon boo nee qaama wala in qaama zaydun kalim la ism fi al xarf daje nañ ñett yooyu boo ci ber in képp kalim la xaama képp kalimatu la zeydun képp kalimatu la moo tax mu ne waaxiduhu kalimatun ismu ak fi'l ak xarf ñett yooyu boole mooy kalim waaxiduhu benn ci ñetti yooyu benn bu mu ci mën a doon kalimatu lañ ko tuddee wal xawlu am mu ne li ñuy wax xawlu xam nga wax na la kalaam mooy lan mooy laf su mu wax ci am njëriñ kalim wax na la ko mooy ismu ak fi'l ak xarf kalimatu wax na la ko mooy benn boo ber ci ism ak fi'l ak xarf des na layeen lu ñu tudde xawlu nee nag wal xawlu xawlu nga xam ne moom mooy lafzu buy tegtale maanaam mu mën a doon am mooy am moo gën a matale xawlu nag mooy luy tegtale maanaam mu mën a doon rek moom moo gën a matale yépp ndax loo gis muy kalaam xawlu la moo loo gis muy kalim xawlu la kalimatu boo gis xawlu la ndax xawlu mooy luy tegtale maanaam bu mën a doon rek moo tax mu ne wal xawlu am xawlu moo gën a matale kalaam ak kalim ak kalimatu ndax loo gis muy kalaam xawlu la loo gis muy kalim xawlu loo gis muy kalimatu xawlu la waaye nag léeg-léeg nga gis benn baat boo xamante ni xawlu dong la mën a doon lu mel ne xulaamu seydin xawlu dong la ndax am na lu maanaam baat la buy tegtale du kalaam ndax wax ji njariñ xulaamu seydin amul njariñ kalim ndax matul ñetti baat ñaari baat la du kalimatu ndax ëpp na benn baat xawlu moo gën a matale ndax loo gis muy kalaam xawlu la kalim xawlu la kalimatu xawlu la ca da gis nag leen lu beru loo xamante ni kii dong lay doon wa kalimatun biha kalaamun xad ya mu ne léeg-léegi ci luxa danañ andi baatub kalimatu boo xamante ni kalaamu lay tekki wa kalimatun yu am mooy def na ci jublu kalaam léeg-léegi waaye nag ci luxa ñu indi baatub kalimatu jublu ci kalaam lu mel ne kalimata yi gi ngay dégg kalimati shahada mooy ñaari baati seere yi ku ne xam ne loolu kalaam la waaye nag loolu istilaaxu luxa la lu mel ne ba tey ci hadis boo xam ne maanaam bi mooy wala boog mooy hadis bi mooy asdaqu kalimatin qaalaha shaa'iru kalimatu labid ala kulli shay'in maa xala allaha baatilu xam ngeen ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wax foofu kalaam la ci naxu ndax wax ju njariñ la waaye nag boo gisee mu tudde ko kalim foofu rek xam naa kon istilaaxu luxa la waaye du istilaaxu kalaam loolu wa kalimatun biha kalaamun xat yu am lu ma ne kalimate yi shahaada ci xadis ba tey ala kulli shay'in asdaqu kalimatan qaalaha shaa'ir kon nga xam ne day mel ne bu doon ci naxwu asdaqu kalaamin lay wax ala kulli shay'in maa xala allahu baatil bayit bi lu ko mottali mooy wa kullu naimin la muxaalata zailu bay la bi mag la lool dund na ci jaahil yéegi li juutu lislaam diir bu yàgg lu jege juróom-benn fukki at dund na lu toll noonu ci day mel ne kon am na téeméer at tegal ku ku ku a kii la ku yàgg la woon hmm. waaxiduhu kalimatun wal xawlu am wa kalimatun bi kalaamun xad yu am bi nga xamante ni wax na loolu ba noppi mu ngi tàmbalee leeral nan la ñuy xàmmee lisim nan la ñuy xàmmee fial nan la ñuy xàmmee xarfa mu njëkkee ko nag ci lisim bil jarri wa tanwiini wa nidaa wa al wa musnadin lil ismi tamyiizun xasal boo bëggee taqrir bay bind wi kii kii bu bu jub da nga naan lil ismi tamyiizun xasala bil jarri ñeel na lisim ak ràññee guñ koy ràññee mbokkam yi ci lii may waaj a wax aljar def na ci xàmmee lisim mooy masque ak suuf tanwin mooy ñaari masque ci mujjug baat def na ci xàmmee lisim nida mooy loo xam ne yaa arafu nidaa jiitu na ko arafu woote def na ci xàmmee lisim al loo xamante ne alif ak laam jiitu na ko def na ko xàmmee lisim musnadin li ismi mooy lu ñu mën a wéeru isnaadin ilayhi lu mel ne faa'il ak xeeti mubtadaa yu mel noonu def na ci xàmmee lisim isim bokk na ci lu ñu ko xàmmee aljar bil jar wa jar mooy lan mooy kasra al jar ci loxo mooy saxab xëcc ci dara loolu ci loxo waaye jarra ñun ci naxu bokk na yi nga xam ne foo ko fekk nga xam ne lii li mu nekk la mooy kasra gi nga xamante ni aamilul jarr moo koy waral wala li mën a wuutu kasra léeg-léegi bismillahi rahmaani rahim misaali jar yëpp daje na ci bismi dafa jar ak baa moo ko jar laahi dafa jar mooy liy wuutu euh, xarafu maanaam la beneen façon amil jar ba tey moo moo ko jar muy idaafa mudaaf ilayhi la rahmaani rahim dafa jar ndax ay manuud la ay wasfu la ci allaahi kon jar mooy kasa gi nga xamante ni aamilul jar moo koy waral wala naaibam aamilul jar nag dafa wuute léeg-léeg mu nekk xaraf comme bismi xaraf jar wala mu nekk idaafa waral ko idaafa dana waralu jar wala mu nekk tabaciya naat wala badal wala yu mel noonu wala atf bayaan mel noonu ci luñ jar loolu mooy waral jar boo gisee mu ne amilul aw naa naibuha kasra lay doon wala lu wutu kasra ndax da ngeen jàng ñu leen am na jar léeg-léeg lu koy wutu bu dee tasniya daañu leen wax ne yaa moo ko fay wutu daañu leen wax ne bu doon jamaa muzakkar saalim ba te daañu leen wax ne yaa moo ko fay wutu maanaam jar am na lu koy wutu léeg-léeg jar kasra ci suuf wala liy wutu kasra léeg-léegi ci bunt yi ñu njëkk a jàng nga xamante ni mooy abu abwaabu niyaaba ci la ñuy xamee loolu kon loo gis ñu mas ko ci suuf isim la ci gàttal loolu ngay déggee fii façon bi ñuy maasa suuf na li koy waral bokk na ci xarfu jar jiitu ko wala amilul jar boobu léeg-léeg mu nekk xarfu jar wala mu nekk idaafa wala mu nekk tabaxiya wala yu mel noonu lépp nag nee naa la daje na ci bismillahi rahmaani rahim tanwin bokk na ci li nga xamante ni ba tey li ñu li lisim ci la bokk tanwin mooy ñaari maska yi nga xamante ni mooy am ci mujjug baat abadan jaa zaydun maska yooyu nga xam ne mooy nuun guñ sukkuun lay doon nga xamante ni dañ koy wax ci dees ko bind loolay tanwin noonu saakina day nekk ci mujjug baat booy wax ci dees ko bind zaydun amrun bakrun rajulun bam jeex loolay tanwin noonu guñ sukkuun guy nekk ci mujjug baat booy wax ci deesu ko bind foo ko fekk mooy tanwin ci isim rek lay nekk nidaa mooy loo xamante ni xarafu nidaa jiitu na ko danañ jàng baabul munaadaa yaa nangam yaa zeydu ak yu mel noonu yépp xamal ne yaa rajulu yaa hindu yaa daadu yooyu yépp kon xeeti munaadaa la munaadaa foo fekk rek isim lay doon lenn rek waras na koo leeral foofu yaa am na yaa yoo xamante ni du yaag munaadaa yaa tanbiih lañ koy tuddee mooy comme yaa yi jiitu yenn xaraf yi yu mel yaa layta yaa rubba xabaza façon yooyu yaa mel noonu loolu yaag tan bii la waaye kenn tuddoo ko yaag mun a daal yaag ni daa boog yaag ni daa moom lañ naan mooy bokk ci màndargay isim yi wa xab la layta rubba xabaza bi yaa fakun munabbihan wala tunaadi yaa kon yaa gi tax ñu naan mooy yaa gi gi gi gi ñu xàmmee li si mooy yaag mun a ni daal lay doon waxuñ nag yaag ten bi comme yaa lay taag yaa xabaza yaa layta ala ya islami yaa yaa daara mayina alal bila wala zala mun halan bi jaraa ikal xatri déedéet yooyu taxut ñuy wax kon loolu yaagoogu yaag tan bi rek lañ ko al na ci li nga xamante ni dañ ko xàmmee isim ba tey al mooy alif ak laam alif ak laam maarifa moom lañu ñu xàmmee lisim addaaru almaxdaratu alkaasu alqahwatu alchaayu alkitaabu ila axiri albeytu alfirash alif ak laam yu mel noonu lu mel ne baytu mutanabbi alxaylu wallaylu walbaydaau taarifu nii wa sayfu wa rumxu wal qirtaasu wal qalamu façon yooyu alif ak laam yooyu ci la ñu bokk na ci li ñu xàmmee lisim waaye nag alif ak laam mawsul taxut di wax danañ ko jàng léegi ci buntu mawsul incha allah déedéet ndax daañu leen wax ne alif ak laamul mawsul dana dugg ci fial mudaari léeg-léegi ma anta bil xakamil turda xukumatuhu wala al asil wala si di wax waaye alif ak laam gi tax ñuy wax mooy alif ak laamul maarifa laam gii nag am na lu koy wuutu léeg-léegi mooy am boo waxee baatub am ci luxab ximyar luxa ximyar euh, danañ jëfandikoo am léeg-léegi ci xadis wàcc na ci laysa minal bir saw mu fi safar mooy laysa minal birri kon bil jari wa tanwiin ni daawaal wa musnad ismi tamyiizul xasal foofu la ñuy yemale bindi mooy bokk na ci li ñu xàmmee lisim ba tey lisim boo a mooy loo xam cee wéeru ko fekk loolu mooy faa'il isim lay doon ndax xam nga da ngaa wéer ci moom jëf ji xumtu yow taagi isim la ndax dañ nga cee wéer jóg gi boo nee ana muuminun ba tey mubtada xamal ne ana googu isim la ndax dang nga cee wéer da nga imaan gi mooy ab julit la kon musnadul ism mooy luñ mën a weer mbir mu mën a doon jëf isim lay doon loolu nag mooy faan mooy mubtada tamyizun xasal bil jar wa tamyin wa nidaa wa al wa kon loolu mooy mandarga yi ñu xàmmee isim dana la wax incha allah mandarga yi ñu xàmmee fi'il ak yi ñu xar xarf incha allah ci bind yi nga xamante ni dina ñëwaat ci kanam wa billahi taala tawfiq yaxfirullahu lana wa lakum واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم